Euh, en vous remettant euh, un appui, un premier appui, un premier appui de 5 millions de francs CFA pour vous permettre de faire une bonne préparation. Donc, message, je vous donne la parole. Parce qu'entre nous, il n'y a pas le protocole. Il y a une <laughs> <laughs> affaire là <laughs> Euh, voilà donc, euh, monsieur, le, maire, au nom des membres du bureau du Guinée Football au nom du comité des supporters, euh, dirigé par monsieur Yaya Ndiaye, y a ni Nous on n'en attendait pas moins parce que d'abord il y a ni président d'honneur du Guédiawaye Football Club loolu suñuy statut la du lo xamni li ñun ñoo la xool rek nga nekk ñu ñu def la ko mais texte yi nga xamni mo moo régir le club Guédiawaye Football Club dafa leral ni ci statut le maire de la ville c'est le président d'honneur du club donc c'est le premier président bo xamni bi équipe bi warul def dara warul def ben jéego te disawul ak mom waxtaanul ak mom ba momit mu orientation parce que comme c'est un club de ville et comme club de ville ñëpp ci la et je vais profiter donc de l'occasion monsieur le maire ci ni nga ci doomu ñi nga ay doomu leen leen ba euh, donc du moins ba ñu am ville parce que nous nous disons que GFC ville de Guédiawaye nga parce que nous sommes les portes étendards les portes drapeaux de la ville de Guédiawaye suñu yalla dimbalé won tay ñu yégg wala ñu dem ay finale coupe du Sénégal wala coupe de la ligue wala jël le championnat li ñi njëkk wax moy d'abord c'est le club de Guédiawaye c'est le club de monsieur Aliou Sall maire de la ville de Guédiawaye te yaakaar tani fofu ñuy di honorer les clubs qui sont à euh, haut niveau au sommet du championnat ou de la coupe kenn mënu ko defar organisation protocole te meeru dëkk ba togu fa wala ñamu yabal tooguñu fa te ñun tay dañ lay bëgg promettre la ñaanal ñaan ci yalla que loolu yalla may ñuko ba ñu mëna ni ñu togué di sétane club muy football final pour nek champion wala muy final jeu final coupe du Sénégal wala coupe de la Ligue loolu suñu fierté lay doon di la wax ni euh, lii nga def euh, xëy na def mais nit war naa def te xamu defu ko te yow danga ko war a def ba pare def ko wax dëgg yàlla geste yu rafet kàllaama yu rafet te loolu nag la ñuy xaar ci yow parce que au-delà du protocole dañuy toog di waxtaan di ree di kaf chaque fois boo ñu fekkee li ngay njëkk def mooy détendre l'atmosphère stressé woon sax boo toogee dina mën a ubbeeku pour mën a wax di wax ni donc ni nga lancé appel ci ñi nga xam ni ñi yàlla wërsëg na leen et nag monsieur le maire am na déjà ñu dégg sa appel parce que pas plus tard que ce matin nous avons été reçus par une très forte personnalité de Guédiawaye hein? dégg nga voilà c'est c'est monsieur Mohamed Dieng le directeur général de XBET, qui est un fils de Guédiawaye, qui est né à Guédiawaye, qui a grandi à Guédiawaye et qui nous a reçus, qui nous a formidablement bien reçus. Et il y a d'autres peut-être qui veulent venir, mais qui peut-être n'ont pas encore été saisis. nous leur lancé un appel di wax nous avons na ñun am na nous xam xamuñu ñu leen xam ku ku leen xam aussi war nga def link pour ñu mën a accéder ci ñoom. ni koy avec les maires des communes avec euh, Madame le ministre, avec le président Malik Gakou, avec euh, le directeur général de Jador, avec le directeur général de Clit Oil, dañu ni Guédiawaye nañu waxante dëgg yàlla may nañu fi ñoo c'est des capitaines de société c'est des capitaines d'industrie nous nañu mën a jàppale mairie bi war nañu mën a le football club ñooñu nag dañ leen di un appel ñu xam ni lii dara gënu ko rafet lii rek am leneen li mu yeneen doomu géejawaay yi nga xam ne sport da leen a ñor ubbi nañu suñuy bunt nañu ànd liggéey ndax géejawaay rek moo ñu ñor leneen ñoruñu on n'a pas le droit de diviser wu on n'a pas le droit de chamailler wu tout ce qu'il nous faut c'est l'unité et ce n'est que dans l'unité qu'on peut faire quelque chose de grand donc nous en appelons à tout un chacun xam ni équipe bi géejawaay football club la toll la toll suñu liste président yi fi jaar defe naa ni dinañu toogaat yeneen jamono xëy na keneen mooy toog fii en tant que maire keneen mooy toog fii ci man en tant que président et c'est comme ça qu'évolue le monde te boobaa dinañ wax li nga xam ni jaar-jaar ñi fi jaaroon tey ñu ngi wax ñi fi jaaroon ëllëg ñeneen dinañu ñëw waxaat ñi fi jaaroon kon on n'a qu'à marquer l'histoire monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm di sant say collaborateurs ndax yàquñ ci dara je le dis nous, Cheikh Mbacké nous Pafal sommes le euh, euh Cheikh Cheikh Cheikh Mbacké président euh, non le président le le directeur du stade Khalifa. Khalifa Gay, Malixi, Sy Damani. vraiment nous avons dox une partition Nous aussi on tenait à les remettre devant vous pour dire que tu as d'excellents collaborateurs li ci

équipé nous, le centre du moins le siège avec tout le confort qu'il faut avec des lits avec des frigos avec des ventilateurs avec des chaises avec un équipement complet d'hébergement c'est grâce à toi c'est un premier acte te yaakaar nañu dinañu dem ba yàlla may ñu nous nga jox ñu terrain nous de ne dinañu tabax le siège ba nga xam ne dinañ la bàyyi léegi nga mën a jox ñeneen parce que les arts martiaux ñu ngi fi te ñoom soxla nañu espace te amuñu fu ñu entraîner ñu mën a am foo xam ne fii dinañ ko mën a def ay centres yoo xam ni c'est des centres d'accueil mais un siège pour le club fagno de la ville donc là ñu ngi lay ñaanal loolu aussi yàlla na yàlla jox possibilité yi ba ñu ba ñu concrétiser ko parce que c'est un projet nous le projet que nous avons c'est un projet de ville de Guédiawaye nga wax ni club bi du club privé du club benn c'est le club d'une ville et it qui leen rek problème boo ci monsieur le maire c'est parce que les résultats ne suivent pas si les résultats suivent tout le monde va venir C'est comme ça que marche le Sénégal. Inch'Allah cette année on aura des résultats. amiin yaa rabbal on a un bon groupe monsieur le maire li ñu dese rek mooy accompagnement bi rek avons ñu amee accompagnement rek bañ a am yenn soucis c'est sûr et certain que dinañu dem on ira très loin. li ci des di remercier aussi tous les collaborateurs mes collaborateurs.